ànd ak Assome Diatta ñu ngi liggéey dara jarul parce que Assome nekk na nit koo xam ne si nit ku gore la nit ku baax la nit koo xam ne mu ngi jàppale jullit yi di jàppale jigéen di jàppale xale yi di jàppale mag ñi nit koo xam ne nit ku dëggu la nit koo xam ne du la dikk lu mu la wax loolu lay def Assome simple na Assome yaru na Assome nekk na nit koo xam ne ku ko jàppale si kàttanu yàlla si kanam la jëm parce nekk na ministre boo xam ne si rëyul doo ko gis mu takk ay or doo ko gis mu takk ay jamaa asom programme bu mën a am day wàccee boppam ba si suuf yem ak ñi nga xam ne moom la nekkal xeebul kenn kon asom nit ku baax la si dëkk bi si Sénégal asom nit koo xam ne ku teg nar a teg si Sénégal la parce que xolam moom la ko yàlla di may waaye Assome Diatta li mu fi def bari na parce que Assome Diatta mu ngi dimbali jigéen ñi si financement mu ngi jàppale xale yi si financement mu ngi yërëm mag ñi di leen iir di leen di leen jàppale bu baax moom Assome Diatta kon liggéeyam rafet na fii si Kër ma Massar su tabaski jotee dafay joxe ay xarit tabaski su korité jotee day joxe ay xarit ay ganaar korité joxe pombiteer joxe ki sukkar joxe lépp kon Assome Diatta nit koo xam ne muy liggéey si Kër Massar loo xam ne lépp lu baax la loo xam ne si kenn mënu koo werante Assome Diatta nit ku baax la jàppale na président la république la ab jàppale na président kon Assane nekk nit koo xam ku bëgg Macky Sall la ku ko jàppale si réewam mi la te ku koy doxal si réewam mi la kon amul lenn lu koy lu koy wax lu dul di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla gën a jëme kanam si kàttanu yàlla ak Sidina Mohamed coronavirus mu ngi commencé joxe na ordre de joxe na ay saabu joxe na xaalis pour koñ bi joxe na ay masque pour koñ bi kon boog fii ba Casamance kees amul benn raison boo xam ne loxo Assome Diatta jaar waaw mën na mar jiite sax réew mi parce que jikkoom ak kaluteem ak yaroteem mor na ko koo mën a maye parce que mairie Kër Massar yàlla su ko mayee da koy jël su ko yàlla defee président tamit da koy def parce que yaruteem ak jàmbaarteem mu nekk jigéen joo xam ne dëggu la nangoo liggéey ko ku ko am si Sénégal da nga koo war a jàppale mu jëm kanam. Fahma Mbengue ak Assome Diatta yëpp benn la si si réew mi parce que ñoom ñëpp président de la république euh, kii président de la république lañ àndal kon ñoom ñëpp benn lañ. waaw bilan Tafaara xam man ba ma duggee si politique bi yàggul parce que man ministre Assome Diatta laa ànd la ak euh, Tafir Mbaye ñoom ñoo ànd si liggéey bi booba ba léegi ñu ngi liggéey lu rafet nag fii nga xam ne si Kër Massar la ak Kees ak Casamance ak région yëpp euh, Assome Diatta bàyyi si loxoom mu ngi si taxaw guddeeg bëccëg li def lu mu mën ak lu mu mënul ñi nga xam ñooy responsable yëg nañ ko xam nañ li muy liggéey ñi si koñ bi tamit xam nañ li muy liggéey nit ñëpp xam nañ liggéey parce que soo gisee ma wax la loolu bi la chef de quartier boo gis jox na la xar chef boo gis jox na la sukar koor sport chef boo gis jox na la ay saabu jox na la ay ordre savel xeebul kenn lu mu am mu ngi koy bokk ak ñëpp di jàppale président bi moom gëm naa Assome jaat nit ku baax la nit koo xam ne ñëpp ko bëgg président Macky Sall na mosu ñoo gisee yàlla dogalugu ko waaye dégg gis naa li ma yónnee sama feebar doom ji moom tam ku baax la nit koo xam ku dëggu la nit ko xam ne amul caaxaan doxul si ay caaxaan du waxantu mooy président de la xam nga nit liñ koy dénk yàlla moo xam ki ko àttan ku ko àttanul. loolu mbiri yàlla la Assome Diar soo gisee ma defar kees gi di ko jox jigéen pour ñu liggéey am dara la parce que jigéen koñ yëpp ñu ngi toog amuñu mu taxawal kees gi jigéen bu nekk nga si yëngu su weer dee am loo jox sa njaboot am loo leen jëndal si parce que jigéen yi dañoo sonn dañoo daw ba bëgg a dee Assome Diar gis loolu bëgg a jàppale jigéen yi bëgg a jàppale xale yu góor yi bëgg a jàppale xale yu ndaw yi bu yërëm nag paa di leen jàppale moom moo tax Assome Diar taxawal kees gi pour jàppale jigéen yi tam ñu am lu ñuy yëngu ñu am lu yóbbul seen njaboot yi parce que nitu yërmande la moo mën loolu kàddu mujj daal mooy Sénégal yépp nekk maa leen nuyu di leen sant di leen gërëm te ñu xam ne suñu ministre Assome jaata jàmbaar la nit ku teey la nit ku tabe la nit koo xam ne du waxantu nit koo xam ne du la du la dig lu mu la wax da koy def la président de la république na xam ne am na ministre bu mot ministre muy Assome Diatta Assome Diatta nit ku baax la nit koo xam ne amul morom fii ci Sénégal nit koo xam ne ku fonk doom la nit koo xam ne ku jàppale jigéen yi la nit koo xam ne ku jàppale paa yi la nit koo xam ne ku jàppale xale yi la nit nag soo melee nit ñi bëgg la la nit ñi duñu bëgg nit oor wala yére bu seer wala taxawaay bu rafet gis nga taar dafay jeex jikko du mas a jeex te Assome Diatta jikkoom neex na ñun ñëpp Sénégal jigéenu Sénégal yëpp kontaan nañ si moom xale yi kontaan nañ si moom paay éliment yi kontaan nañ si moom président de la république nekk mosuma koo xam waaye ku kontaan laa si moom koo bëgg laa parce que jikkoom ak Assome dafa mel ne yàllaa xam boole parce que ñaar ñu dëggu lañ ñaar ñu ànd lañ di liggéey Sénégal gàcce ngaa ma yéen maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp